samay tàmbali kàddu waxoon naa ko 2020 luñ ciy jàpp mooy Covid 19 surtout Covid 19 boobu mu ngi feeñoon ci réew mi ca weeru mars. Hmm. bu mu feeñee nag nguur gi jël na ci nas na ay pexe yu bëri daal ngir ngir dakkal ko fi. Hmm. lu ci mel ni état d'urgence couvre-feu imposé ay restrictions yu bëree bëri bëri. Hmm. tey aussi mujj gi ñu. sax théoriser vivre avec le virus tey aussi virus bi mu ngi circuler am na ñu ne sax c'est encore plus virulent hmm. mais aussi mesures yooyu tegg nañ ko donc mesures yooyu est-ce que c'était approprié kon ñu koy jël yaakaaroo waaw xam nga covid 19 euh, booy xeex ak moom da ngay mel ni ku nekk ci guerre hmm. xam nga booy guerre day am moment yam da ngay attaqué hmm. am moment yam da ngay replier replier tekkul ne bàyyi nga guerre bi am moment yoo xamante ne da ngay xool stratégie nga adapté ko à l'évolution de l' adversaire adversaire bi Covid 19 la tudd Covid 19 bi muy ñëwee ci kaw suuf dafa song wér-gu-yaram waaye songaale koom-koom maanaam boo dajee nit ñëpp ci benn béréb koom-koom gi sooxe boo yeewee nit ñëpp wér-gu-yaram gi sooxe mu nekk un choix très difficile euh, choix boo xamante ne aussi dañ koy moduler en fonction de l' évolution tey ji Covid 19 bi soixante-dix jours yu njëkkee depuis 2 mars boobu nga tudd sànq. soixante di jour yu njëkk yi Sénégal dafa dëgëral lépp pour pourquoi ñu dëgëraloon parce que il fallait que rapidement ñu jógee ci trois centres de traitement à trente-trois centres de traitement après loolu ñu commencé nit ñi commencé miin sol masque ñu commencé leen soññ ci sol masque commencé leen ko imposer transport yi ñu wàññi woon ne bu leen demandoo yéen ñëpp nañ ko nañu nañu chargé moitié yooyu yëpp parce que moment boobu nit ñi amaguñu les réflexes pour mën a xeex ak feebar te masque doyul woon ci àdduna bi rawatina Sénégal gis nañ fi sax ay avion masque yu xamante ne dafay jóge Chine européen yeeg américain yi di ko xëccoo parce que économie mondiale moo bindoo woon noonu nga xamante ne masque yu bëri Chine lañ ko daan defaree ak ay Inde euh, paracétamol tey jii 60 pour cent paracétamol àdduna bi yëpp Chine lañ ko doon defaree parce que l' économie mondiale moo ne bindoo woon noonu mais Covid 19 bi donc 70 jours yooyu ba ñu téye ba noppi après ubbeeku nañu. yàlla dogal également sénégal yi gën a góorlu ci euh, wa mbas-mbas euh, mi maanaam moytu feebar bi ba également état bi aussi jël ay dispositions après gën a yolomal kon tey jii bu ñu waxee deuxième vague phase yi commencé di yéeg xam nañu yoon ba ñu jaaroon ba wàññi feebar bi yoon boobu également état bi jël na ci ay responsabilité pour que ñu gën a góorgóorlu également pour gën a bloquer les cas communautaires gën a également fexe ba. pousser sénégalais yi ñu gën a sol masque pousser leen également ñu gën a éviter n'est-ce pas yenn proximité yi et c'est important et je pense que c'est collectivement que tous les sénégalais ñoo ci war a taxaw pour que ñu góorgóorlu ci ba fexe ba feebar bi réculer waat ndax plus muy réculer plus ñu gën a am des espaces pour mener correctement nos activités classique économiques dans le respect des gestes barrières je pense que franchement damay saluer l'initiative bi état bi jël leneen li ci yokk ndax président de la république na au niveau de l' assemblée nationale benn projet de loi bu bees boo xamante ne la loi de 1969 sur l' état d' urgence nan lañ koy allégé ba suba bu catastrophe sanitaire amee wala catastrophe naturelle nga xamante ne ça n'a rien à voir avec les problèmes de liberté ça n'a rien à voir avec les problèmes politiques catastrophe am na euh, au niveau santé wala ci wàllu euh, disons naturel euh, catastrophe naturelle état nan la mën a fexe ba alléger loolu pour que président de République <coughs> mën a délégué wala mu jël ay mesures yoo xamante ne ci ñaari fànn rek la mën a tënku benn bi mooy couvre-feu beneen bi mooy limiter déplacement uniquement nag ci cadre catastrophe naturel ak catastrophe sanitaire sans passer par l'Assemblée nationale pour am une loi d'habilitation je pense que loolu c'est une très bonne c'est une très bonne chose parce que jaar bi ngay jaar assemblée pour catastrophe naturelle ak catastrophe sanitaire mën na gën a yéexal mbir mi te bu boobaa mën na balaa ngay si fekk nit ñu bëri nañ ci ñàkk seen bakkan et je pense que c'est tereewul nag yeneen yi nga xamante ne c'est pour des problèmes de sécurité des problèmes de disons de euh, politique wala yeneen problèmes yoo xam ne c'est des problèmes Euh, de liberté bu boobaa obligatoirement di nga jaar assemblée je pense que évolution boobu aussi am na importance dina permettre état yi ñu mën a gën a teel a réagir pour pouvoir juguler ce genre de phénomène. waaye foofu it seen wujj dañ ne daal euh, Macky Sall njiitu réew mi lu tax mu taxawee noonu daal dafa bëgg a yokk dooleem. waaw xam nga daal euh, contourner assemblée nationale bi daal day gën a dooleel président de la république. xam nga loolu ñu koy wax dañuy franchement dama ne dañu bëgg a wax rek loo xamante ne da nga ne bu ka bu bu bu dara xëyee ne kër ne jon ci wàllu wér-gu-yaram wala ci wàllu par exemple benn phénomène boo xamante ne xama goo ko muy loo xamante ne catastrophe naturelle man état mën naa ci benn weer. jéem a instaurer couvre-feu wala ma jéem a instaurer disons limiter déplacement yi. ci euh, euh, limiter ko dans le temps kooku amu ci benn problème parce que c'est bien circonscrit. li waral loolu mooy douze jours ya ngay perdre assemblée wala temps bu yàgg ba ngay perdre assemblée pour assemblée sax est-ce que di nga ko mën réunir bu dee catastrophe sanitaire am na gis nga temps yële passé ñu naan Covid bi duggoon na ba biir assemblée donc tey ji bu situation exceptionnelle amoon tey ji ba kenn du mën a génn këram ba catastrophe sanitaire ñëw est-ce que tey ji dañu war a am blocage boo xamante ne loi moo ñuy tënk ba njiitu réew du mën a jël yenn dispositions yi dans l'urgence je pense que loolu dans les pays de grande démocratie euh, tout ce qui a trait à ce qu'ils appellent un péril imminent maanaam lu ne kante ne jon lan mën na sànq ay bakken yu bëri ñu mbay njiitu réew mi mu jël ay pouvoir mu am ay pouvoir yoo xam dina ko permettre mu teel ko régler tekkiwul ne du jaar assemblée ndax un mois la ñu wax renouvelable une fois ci biir deux mois yooyu le temps que président jël mesure yooyu dina jëlaat la procédure classique bu koy permettre mu jaar par la voie parlementaire et je pense que noonu moo gën parce que feebar bi dafa nekk feebar boo xamante ne bu ñu xoolee asiatique yi ni ñu ko réglé parce que dafa ne bëri rek asiatique yi teel a jël yenn mesures yi ñoom ñoo taneegum ci ni ñu ko réglé pour mën a limiter déplacement yi pour mën a également instaurer de couvre-feu yu koy yu leen permettre un peu ñu bloquer feebar. dañ ne sax régime autoritaire yi daanaka ñooy gën a réussir. gestion bi souvent. waaw waaw gars yi xam nga li ñu tuddee le a yokk autorité am xanaa. xam nga ñaari extrême moo am. extrême bu jiitu bi mooy. nga pousser la démocratie à un niveau tel que. bu menace amee président day toog ne aw ma pouvoir. boobu baaxul. menace bu immédiat bu ñëwee président dañ ko war a may des pouvoirs ndax Sénégal dëkku droit la. dëkku démocratie la. moo tax toujours suñuy texte président dafa ne damay dugg yóbbu loolu assemblée assemblée changer légèrement. la loi de 69 uniquement sur la catastrophe sanitaire wala la catastrophe naturelle je pense que amul coow waxuñu ay problème mu politique waxuñu ay problème mu insurrection waxuñu ay problème yoo xamante ne des problèmes de liberté la wala c'est des problème mbiru wér-gu-yaram la ak catastrophe boo xamante ne jóge na ci wàllu wàllu wàllu wàllu euh, euh, catastrophe naturelle tey jii kenn ñaanu ko yàlla mi am na situation yoo ne bu amee nga xëy ouragan am wala yenn yi am bu boobaa population yi c'est contre leur gré ci nga leen di imposer yenn mesures yoo xamante ne c'est pour sauver leur vie ndax bu ñu fàtte ne première mission kilifa président de la République mooy sauver bakkanu doomu aadama yi gannaaw yàlla gannaaw yàlla mu jéem a fexe ba protéger les sénégalais yi gannaaw yàlla ndax yàlla mooy protéger mais li ëpp importance daal mooy loolu et je pense que avancée démocratique la sax la en terme de d'acquis pour le citoyen parce que citoyen bi aussi bëggul demee am benn blocage institutionnel buy tax ba état du teel a intervenir pour jàppale population